boo moytuwul sax day ñëw ki sa dëkk fa. la ma nangu woon nag ma ne ko nag ma xamal ko carrément ne loolu dootuma ko nangu ndax lu ma bett la lu ma musu woon am musuma koo foog ci sama àddina. Hmm, daw ca ba naa ko nag man ma ne ko duma la mayaat beneen chance nag. da fii bëggatuma sa tànk teg nga teg ko fi. ndeysaan. noonu laa bàyyanteek moom ba léegi daf may woo ma di ko woon waaye gisatuma ko gis ñëpp mujj gi ba mu demee ba xam ne caaxaan jeex na dafa dellu ci sëyam toog. Hmm, mooy ful de. léegi dafa dellu ci sëyam toog ma ne ko loolu mooy fulla nag li nga nekk fii di taxawaalu di tër. xebel xeebel kese. ma ne ko xeebel kese xeebel kese moo tax ñun jigéen ñi war nañ def attention bu baax xaritoo yenn yi lañ war a bàyyi. Hmm? ndax man mosuma ko woon foog waaye ba ma ci jaaree laa xam ne ndekete xarit am na am na ñoo xamante ni nekkuñu ay xarit dañuy ñëw pour teg la bët. ja ku ci jaarul doo ko xam. ku ci jaarul nag man bu njëkk ba buñ ko daan wax dama naan am na ba dee nit la la mën a yow nga naan day day nangu sama jëkkër day def lii. ci la ñuy dox de. di ci wax waaye ba ma demee ba dund ko nag laa xam ne lii am na. ndeysaan. léegi nag comme jigéen ñi noonu ma am na jour boo xam ne dafa ñëw ba sama biir armoire. waaw mu jël sama yére nee na dafa. allo alo daf allo waaw yaa ngi may dégg. waa maa ngi lay dégg waaw. ma la dafa am jour boo xam ne moom dafa am xew. Mm-hmm. mu ñëw sama néeg fekkuma fa mu ubbi sama armoire. Mm-hmm. mu jël sama yére mhm. dem ci tailleur bi wàññilu ko sol ko ndeysaan moo tax su ma toogee ngay wax yenn yi noonu la amee mel ni yow danga nga koo fekkee dafa dem wàññi yére bi sol ko ba mu ñëw yére bi dama koo mujjee may ndax jotatuma loolu xel la xel la waaye dafa la jàppee dof moo tax nag ma xam ne kii li ma ko may ëpp na man tamit ma xam ne ñàng nga teel ko freiné génn ci mhm. xel moo la ci génne waaye boo forcé rek mën nga cee jële leneen am na solo waaye damaa dem nag toog xoolaat sama bopp bu baax ma xam ne kii. Mhm. su ma négocier ak moom ànd ak sama xel naa ci génn. Mhm. te du ma forcer nag doo forcer da ngay négocier ñaan ci yàlla rek yàlla dina la jàppale ndax booy nekkee ci dëgg. Mhm. nekkoo ci ay caaxaan. jàpp sa fulla ak sa fayda rek bu soobee yàlla yàlla moo la si génne noonu laa def ba génn si may ñaax sama yeneen jigéen ñi nañu bàyyi jigéen bu ñëwee nga ne ko nañ nelaw sama lal. da nga da yaru rek moo tax forcer waaw <laughs> yooyu daal bëgg naa ñu ñu gën cee góorgóorlu daal sëy ñu téye leen bañ leen a bàyyi ak yeneen jigéen ñi daal yàlla nañ mën a tey ñuy tàggoo ba yoxoo su doo ko xam <laughs> kenn mënu leen a teye dañoo tëj waaw loolu moom am na waaye ñu gën a góor góorgóorlu rek ndaxte nit ku nekk ak ni ngeen commencement yi seen dund daal ndeysaan jëf am na solo waa kay man nag maa sopp naa la to maa la raw maa la raw chéri jërëjëf ñu jaajëfal ko bu baax a baax ndeysaan boo ko déjjeeg lemm-lemm ji sax nga xam ne ku yaru la euh, dafay nekk koo xamante ni ndeysaan euh, yoxoosu ko la ñuy jàpp ne mën naa yomb waaye nag léeg-léeg euh, li ñuy wax naan juddu bu rëy ndey ak baay fulla ak fayda borom am na loo xamante ni pesum kanam la kenn du la ko lijjantil yaa koy lijjanti sa bopp ba féetale ko côté te ni mu wax nañu téye seen jëkkër yi jëkkër est-ce que léegi jamono bi neex naa téye xam naa dafay doon laaj boo xamante ni semaine prochaine lañ ma ciy tontu ndax léeg-léeg dafa nekk mbir moo xamante ni mbir mu doy waar la neexu ñoo téye fa ñuy tàggoo rafet njort rek nga ciy am jàpp ne fa la ñu jëm te fekk na booba yàlla xam na ni boo découvrir fa ñu jëm boo moytuwul xol bu bon ngay dëkkee ba ilaa yomi diin ndax dootoo leen gëm allo alo Mbaye. oui. noo def mbaa yaa ngi ci jàmm. maa ngi sant yàlla bu baax soxna si. man la sa xarit Adja Diop. waaw Adja Diop maa ngi lay nuyu léegi pourtant di borom baax. wallaahi wallaahi li ma la waxoon rek nee naa la looy def te yàlla tax rek. nga def yaa baax. dafa rek te yàlla tax. yaa baax Diop. il faut être flegmatique la vie. isan yàlla moo lay fay bu soobee yàlla yonent bi isan góorgóorlu sa am na solo am na solo Diop na solo Diop merci beaucoup merci beaucoup Diop di ku yàlla baaxal ba ma koy tudd sànq xaw ma woon ni mi ngi seetaan émission bi ndax defe woon naa ni liggéey na nekk fële ca Nord Foire ca ginnaaw yëngu leen di koo xamante ni mbaaxam ak li muy def ci émission kër gi te yàlla mi ma tiim xam na ni benn yoon laa ko mës a gis muy dimbali soxna soosu nga xamante ni dafa yaroo woon ci kër maam Abdou Aziz ajaratu Ndella Thiaw Ndella Tabara bi nga xamante ni moom la Njaga Mbay wayoon way rëy wa boole maag moom benn yoon boobu laa mas a gis Adja waaye lépp lu ma yëngu lu ne jël na otoom yebal ci ay ndaw def ca la mu ca war a def ba ci bërki démb kaa bi ma am ci biir koor gi te liggéeyuma ginnaaw yàlla ak yonente bu budul woon teg moom ak Chérif ay dara kon mbir mi dana ñaaw kon Ndella maa ngi lay ñaanal yàlla yaa xam ni nga bëgg yàlla na la ko yàlla defal la nga xool ci soxna Mbaye itam ba bëggal ko sa bopp wóolu ko sa bopp itam yaa ko xam yàlla boo ci gis dara loo xamante ni danga koy réccu xam naa mbokk yi ni ma leen koy waxee rek dañ may tegal élément wala bu fekkente ni temps bi jeex na wax ma ban heure a jot mbokk allo allo. waaw. waaw soxna Mbaye. waaw. allo. waaw soxna Mbaye. waaw da ñu wax man ak yow ci téléphone bi. waaw. allo. allo. ñu jéglu ko bu baax a baax di ko ñaan na wàññi télévision bu fekkente ni waxtu wi des na tuuti su ko defee mu daal di dugg rek indi xalaatam ci li nga xamante ni yëkkati nañu ko ci diggante nit ak xaritam mbokk alo allo. waaw. soxna si waaw ñoo ngi delloo ziar. Mhm, tur bi naka laa ko fa wootee. man Mbacke laa dëkk. Mbacke. waaw aji Mbayang mi nekkoon dem si. ndeysaan. dama ko bëgg rek te yàlla tax. maa la raw maa raw yaa booy. naa ko nag maa ñaanal. ndeysaan. waaye dara rek. tur wi naka la. man. waaw. Adja Daba Diop laa tudd. Adja Daba Diop. waaw nee ko. na am ak dara rek. ndeysaan Mbaye. ci ne. am nga nattu am nga ku la mm-hmm. waaw nga ne ko na dal. waaw nga ne ko lépp lu am ba ba tax muy gën ci bàq bii rek. Mm-hmm. maa ngi ci lu ko fuuf waaye bu mu jëñ waat bu mu xaru. dëgg la dëgg la Diop. na nekk ci lu baax li nekk rek ta xam ne loo nekk rek yàlla mi la tiim te gën laa jege sa buur nga xool xam na ci li nga ne. dëgg la dëgg la Diop dama ko bëgg nag te yàlla tax. ndeysaan maa ngi wax ak yow nii en direct pourtant allo. sama doom ji laa yamale barke yonent yàlla Muhammad yaay da ba soxna Mbayang ngay waxal en direct nii man maay wax ak yow. waaw Mbayang Mbayang maa la bëgg. ndeysaan ndeysaan fépp foo bëgg a yegg yal na fa yàlla yegg. allahumma amiin yaa booy waaye nag <laughs> yëngaluma sax. <laughs> ndax kuy am. ndeysaan yëngaluma sax ku amoon noonu amul. ndeysaan. waaye nag xoolal ci yàlla ak yonent bi sëñ Touba ak bi nga xam ne ñoo gënoon ñëpp te teewuñu am euh, ñu leen di wax. Mm, man duma ñoom sax. te ñoom dégg waaye ñun ñoo si bopp yàlla rek. ndeysaan. waaw. Diop naa ko maa ngi koy ñaanal bu baax yal na ko yàlla jàppale. allahumma yaay mu bàyyi gi ma jot ndax ba mu dalee toog ci télé bi ba tey suba ko jot jóg naa pour bëgg koo jot. ndeysaan yaay dama Diop fexe ba yaay Diop Diop ñaan lu may ñaanal soxna may mbàkk maa ko koy ñaanal yal na ko yàlla jàpp. yaay daba yaay yaay bàyyil ma foofu sa numéro. yaay bo. oh là maa ngi koy jéglu bu baax a baax euh, sunu soxna su baax soosu di yaay daba Diop Euh, di ko ñaan rek euh, nañu bàyyi numéro am wala bu fekkente ni euh, jotuñu na jël rek vingt 33 822 14 90 33 822 14 90 su ko defee ñu jox ko sama numéro ma dégganteeg ñoom ndeysaan yaay la ci ab mbàkke mbàkke toog këram di ñu seetaan jot ñu téléphone di ñu ñaanal yàlla lii dafa nekk loo xamante ni benn doom aadama mënu koo jënd tey nga toog ñaanal ma far force déedéet yàlla rek moo koy def ci yow lu tax nit ñi toog di la ñaanal kon maa ngi koy ñaanal yàlla rek lu ma ñaanal yàlla naa ko bokk ak njabootam te it nag yàlla na yàlla guddal fanam wéral cëram bàyyi ko ci kanam mu yàgg fi lool lool lool di profito itam euh, di ci nuyu ki nga xamante ni mooy soxna Aïda ma madame mbay yor benn hôtel fële ca Mbacké maa ngi koy nuyu bu baax a baax itam di ko ziar di kontaan ci moom di kontaan ci ajaratu Kolle Jong du ma fàtte itam Adja Jong nekk foofu ci diwaanu Mbacké Bawol Euh, bu fekkente ni waxtu wi jeexul waaye dafa mel ni euh, daanaka jeexal nañu tàkk li ñuy def mooy rek dañuy jaajëfal ñëpp xam ngeen ni diggante nit ak xarit mu nekk thème boo xamante ni ñu ngi ko jële woon fi nga xamante ni euh, mooy Marseille ñu defoon fa émission kër gi nag dajale fa ay jigéen waxtaan ak ñoom mu am ay seede yoo xamante ni ay jigéen am nañu lu ñu fa dund am courage toog ci kanamu télé kanamu télévision bi 2STV wax ne ñoom kat seen problème lii la lii la ñu dund lii la ñu jànkonteel émission kër gi defal na leen lii ak lii lool nag ñu ngi ko defoon ci njiital ki nga xamante ni mooy asu simaga allahu rabbi dinañ ci ñëwaat ci kàttanu yàlla ci biir semaine bi yeggale mbir xarit ak tolof-tolof yi nga xamante ni jigéen ñi nekk bitim réew ñu ngi koy jànkonteel def nañu ko Marseille def nañ ko Toulouse incha allahu rabbi dara du leen ci ëmp ci li nga xamante ni waxtaane woon nañu ko ci kàttanu yàlla dinañ fexe ba mu yemb semaine bi di ñëw incha allah ñu ngi jaajëfal ñëpp di gërëm ñëpp di sant ñëpp di rafetlu ànd bi nga xamante ni yéen a ko àndoon ak ñun di wax daal ne tey ji mention spéciale à Babacar Diouf képp koo xamante ne yaa ngi toog jàkkaarloog man di ma setaan nag ma ko ñaanalal yàlla yàlla guddal fanam wéral cëram ndax nag immeuble boo xamante ni R plus 2 la ci jamono bii lu yaas ba mën nga caa am àddina ak li ci biiram waaye boo nee nañ ma jëli sinistré yi ñetti famille dinaa leen jox camion bu leen jëli dinaa leen fayal courant fayal leen ndox te nag dëkk bi amul app du ñu leen mës a génne ba buuf tawal ah dafa nekk loo xamante ni lu rëy la képp koo xamante ni itam sinistré yooyu dem nga bu ñu leen fa dugalee ndax daf ko def ci turu 2STV yi ko ci turu émission kër gi téléthon wu ñu nag defuñu dara waaye ku am sa ceeb ngàbbal ba foofa yóbbul leen boo ko mënul itam ngàbbal jox ñu dinañ dem yóbbu ko diw mi moo la jox ceeb bi diw moo def lii ak lii ubbi wuñu compte bu waatuñu dajale wuñu dërëmu kenn parce que loolu dafa nekk mbir moo xamante ni mën naa jur lu xóor ëllëg kon mbokk yi ñu ngi leen di jëfal di leen ñaanal yàlla jàmm yàlla mi borom jàmm te ku mu may jàmm nga mucc ci jàmmarnoo yàlla na yàlla defal leen jàmm rawatina mbokk yi ci ndox mi ñu joxonte daje incha allahu rabbi ba altine ci kàttanu borom bi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu fi amaanillah jaa ngeen jëf